baax de auzu billaahi mina sheytaani rajiim alhamdulillahi rabbil alamin mbokk yi Firdaws Coaching maa ngi leen di nuyu di leen ziyaare tey nag ma bëggoon leen indil rek benn cadeau bu tuuti tuuti tuuti waaw dama leen di defal débriefing rek ñamal leen li ci des waa cinq de ñoo koy moom ah lu jëm si wàllu couleur yi euh, ni muy symboliser li nga xam mooy suñu euh, suñu euh, comportement waaw ah, jotoon nañ ci ñëw bu ngeen fàttalikoo si livre suñu livre lise boobu Euh, ci ñi nekk def cinq de jotoon nañ see gis euh, suñu choix euh, suñu personnalité ni muy influencer suñu ay choix wu couleur suñu choix wu maison suñu ay choix ci lépp nag ba si nit ñi jëflanteel sax suñu personnalité ni mu ñuy mënee à que ñuy def des choix inconscients par rapport ak loolu. kon ñu gis ni nit ku nekk couleur bi nga xam ne moo ëpp sa armoire couleur bi ngay gën di utiliser bi ngay gën di sol ci comme yére couleur boobu dafay wax lu bari si yow. ba tey ñu gis ni euh, tey entreprise yu ci bëri bu ñu lay embaucher booy ñëw dañuy xool couleur bi ngay sol parce que tey par exemple imaginons rek benn scène nit ki ñëw euh, war a def entretien d'embauche sol jaune tout jaune waaw ah, sol ci kaw ba ci suuf lu jaune xam nga jaune dafa xaw a nekk euh, couleur bu bu pas sérieux daal couleur boo xam ne c'est pas prometteur du coup du tout <laughs> kon ñu gis ni couleur yi dafa am solo ci day wax ci sa personnalité. waa day wax ci sa personnalité donc nit ki bu solee jaune ci entretien d'embauche wala ñu gis ni lu ci ëpp jaune lay sol dañuy gis ni c'est pas une personne sérieuse c'est une personne boo xam ne dafay euh, gaaw a bàyyi dafay gaaw a li donc maa dugg ci jaune pour exemple rek kon ñu ñëw dugg ci couleur euh, noir noir dafay symboliser l'élégance day symboliser li nga xamante ni mooy euh, réussite symboliser li nga xamante ni tamit mooy ambition respect audace ba ñu gis ni ñuy sol noir Euh, en général dañu nekk ay nit yu sensible waaw dañu nekk ay nit yu sensible nekk ay nit yu discrète aussi bëgguñu exposer seen bopp même seen ay opinion seen ay affaire lépp dafay discrète nekk ay nit yu nga xam tamit euh, dañu fas dañu yomba irrité wu waaw sont des personnes facilement irritables irrité mais du coup da ngay gis ne duñ ko wane duñ ko wane même bu ñu meree c'est quelque chose boo xam dañ koy garder garder à l'intérieur duñu exposer seen ay Euh, donc kon ñu defal leen débriefing boobu ci personnalité pour ki nga xam ne dafay faral di sol euh, yére bu noir kon ñu gis ni kii sol yére bu noir discrétion am des fois mën na susciter sax benn curiosité parce que dafay discrète nit la boo xamante ne xëy na euh, dina dem ba ñu mu nekkal mun nañu di di gis comme nit bu suspect parce que dafay dafay nekk nit boo xam ne daal macha allah ah, en même temps dafay sensible mën na élégant mais en même temps tamit mu am benn discrétion bu macha allah. kon ñu ñëw ci couleur bi nga xamante ni mooy couleur marron ñi nga xam ne dañu bëri le marron seen tànn yére marron daf ci bëri lool dafay symboliser rek stabilité équilibre euh, ak li nga xamante ni tamit mooy euh, espoir nekk ay nit yi nga xam ne euh, macha allah bu ñu jëflanteeg yow da ngay gis ci ñoom ay nit yu positif ay nit yu ndax dañuy wax ni marron couleur suuf la couleur couleur de la terre. ah te suuf loo ko jox mu delloo la ko nekk ay nit yu confiance seen jëflante nekk ay nit yoo xam tamit boo jëflante ñu dañuy gis ni loo jox ñu delloo la ko parce que nekkuñu ay euh, macha allah daal dañuy dañ lay yokk waa duñ la wàññimee mais dañ lay yokk kon ñu gis ni ñi nga xamante ni dañuy faral di sol marron lu bari ay nit lañ ñi nga xam ni dañuy euh, am dañuy am respect euh, ci li nga xam ne mooy culture yi ay conservatrice lañu ay nit la ñi nga xam ne tamit dañuy respectueuse aussi Euh, nekk ay nit yu pacifique ah nit yu bëgg jàmm et tout donc kon ñu gis ni marron loolu lay symboliser ci gàttal kon ñu ñëw ci couleur bleu. kon ñu gis ni selon les scientifiques yi nga xamante ni mooy Colombie britannique euh, dañuy wax ni euh, li nga xamante ni mooy couleur bleu dafa am pouvoir. bleu dafa am pouvoir ku comme ni ngeen ko jàngee woon ci audio bi passé signification couleur yi moo tax ñiy sol bleu d'habitude ñu bëgg bleu dañu nekk ay nit yu calme. ay nit yu posé ay nit yu macha allah yu dal. Ah, kon ñu gis ni bleu dafa ànd ak douceur dafa ànd ak li nga xam ne tamit mooy euh, euh, équilibre waaw tey boo gisee mm, par exemple couleur bu la effet yi mu mën a def même tamit def ci bokk ay nit la ñu am ambition nit yu yu bëgg réussite nit yu jàmbaare travailleur mm-hmm, ay nit yoo xam ne macha allah lu ñu dañuy wax ni euh, lu ñu laal mu nekk or donc kon dañuy gis ni bleu. Euh, couleuru marketing la couleur la boo xamante ni bu ngeen seetloo marketing yu bari même boo xoolee ba ci Facebook ba ci Twitter ba ci marketing yu bëri dañ koy faral di utiliser. kon ñu ñëw ci couleur vert vert nag comme niñ ko xamee couleuru nature bi la. en général nit ñi sol ay yére si nit ñi seen yére bëri verte dañu nekk ay nit yi nga xamante ni ay nit yu naturel lañu nit lañu yoo xamante ni euh, duñu làqatu <laughs> wala di di ñu wax naan mache seen ay mots wala di aw di def ay demi tour waaye nit la ñi nga xam tamit dañuy inspiré li nga xamante ni tamit mooy confiance ak sérénité ndax bu ngeen xoolee nature bi lim la ñu ko offrir mooy paix intérieure ak sérénité boo nekkee ñoom tu te sens en confiance tu te sens en paix te ñi leen di xool ak ñi jëflanteeg ñoom sax dañuy am boobu sensation nit ñi nga xam dañuy faral di sol vert dañu nekk ay nit yi nga xamante ni ay nit yu généreux lañu ndax ku ne mm, nature ne générosité donc dañuy gis ay nit yu généreuse lañu doon ay nit yu mën a joxe ay nit lañu yoo xam ne yu mën a dimbali nekk ci ay cause kon ñu gis nit ñi faral di sol vert lu ci ëpp ay nit lañuy social yu yu actif waaye ay nit lañ tamit yu créatif kon ñu ñëw ci couleur violet violet comme ni ñu ko xamee couleur spiritualité la couleur haute société la tamit parce que bu ñu xoolee euh, ñu ci mel ni reine euh, fami euh, famille royale yi dañ koy sol lu bari waaw dañuy sol couleur violet nekk na couleur richesse kon ñu gis ne nit ñi nga xam ne seen yére yi dafa bari violet da ngay gis ne ay nit yu inspiré tendé vers l' spiritualité nit lañ yoo xam ne dañ koy bëgg dañ koy absorbé dañ koy cherché waaye tamit ay nit la ñi nga xam ne tamit dañuy inspiré benn mën nañ ne mentalité bu bu bu bu bu riche mentalité bu haut de <laughs> parce que day bokk ci seen maanaam nekk ay nit yu bëgg élégance ay nit yu bëgg lu rafet ay nit yu bëgg luxe donc euh, kon ñu gis ni tamit ñi sol violet dañu nekk nit ñu bëgg art mais nit ñoo xamante ni dañuy passionné nekk ay nit yoo xam ne macha allah ay euh, rêveuse lañu ay nit yu yu am vision euh, vision bu loin nekk ay nit yu yu rêveuse daal nekk euh, ñu mën a rêver fu sori daal waaw mën a inspiré wu ci certaines chose pour pour le réaliser nekk ñu créative ba pare tamit ñu nekk ay nit ñi nga xamante ni dañu dañu spontané waaw bëgguñu tamit. dañu spontané mais tamit ñu nekk ay nit yoo xam ne tey boo nekkee ak ñoom dina jafe loolu nga xam lu ñu bëgg wala fu ñu jëm wala nu ñuy xalaatee parce que seen façon de faire ak seen euh, dañu xaw a mystérieux tuuti tamit. rouge rouge ñu ñëw ci couleur rouge rouge nekk couleur boo xam ne couleur passion la couleur amour la couleur danger la mais tamit couleur euh, conviction la tey dañuy wax ni bu ñi nga xam ne dañuy def ay. Euh, réunion d'affaires bu ñu bëggee convaincre sax da gis des fois seen yëre dañ ciy rax rouge soit cravate bi wala euh, quelque chose ci seen habillement wala nœud bi ñuy def ci seen poche nekk quelque chose de rouge parce que rouge tamit dafay symboliser li nga xamante ni mooy chaleur. kon ñu gis ni tamit ñiy sol rouge lu ci ëpp dañuy nekk euh, ay nit yu brillant parce que rouge dafay attirer attention donc dañuy nekk tamit ay nit yu égocentrique ay nit yoo xamante ni dañuy nerf gaaw a nerveux waaw ah, parce que tamit dañuy bëgg centre tout le temps attention bi des fois ci ñoom et que euh, cela se passe ainsi. des fois tamit mën nañu bokk tamit euh, ci seen euh, bëgg boobu ñuy sol rouge mun nañu tendre vers certaines addictions kon ñu ñëwaat tamit ci jaune jaune comme ni ñu ko xamee day symboliser bonheur espoir richesse ak li nga xamante ni tamit mooy or ak li nga xam tamit mooy mën nañ ne soleil bi ak beau temps bi. kon ñu gis ni euh, scientifique yi dañuy wax ni euh, couleur jaune dafay yokk li nga xam ne mooy sérotonin sérotonine ci cerveau bi dafay yokk nit ki bu gisee couleur jaune ci benn environnement par exemple mën na ko jox couleuru kontante tey ñun ñu nekk Europe di gis tout temps hiver bi di gis tout le euh, nañ ne lëndam bis bu soleillé ba naaj bi génn boo génnee yow déjà da ngay kontaan te xamoo la moo xew te dara changé wul mais tam da nga am sensation de bien-être bu extraordinaire boo xam ne jaune ñu koy sol en général ay nit yu allègre lañu ay nit yu jovial ay nit yu accueillante ubbeeku macha allah. kon booy sol jaune lu bëri da ngay gis ne ah, nit nga boo xam ne nit ñi dañ lay sopp nit ñi dañ lay bëgg da ngay faral di attirer attention da ngay enthousiaste mi nekk nit bu bëgg aventure nit boo xamante ni jaune moom mun nañ ko qualifier comme le 7 du l'ennéagramme <laughs> donc ñu gis ni kon ñi sol jaune macha allah ay nit la ñu nga xamante ni nitu nit ñi lañu nit ñi dañ leen di bëgg dañu leen di apprécier et ay nit lañu tamit yu neex a nekkal. kon ñu gis ni jaune euh, bokk na ci personnalité am dafa aventurier nit la ko bëgg voyager découvrir ah, gis yu bees macha allah. kon ñu ñëw ci weex weex euh, dafay symboliser li nga xamante ni mooy pureté di symboliser li nga xamante ni mooy mooy euh, naka lañ ko waxee divinité sagesse calme sérénité paix di symboliser ba tey euh, lu ci mel ni liberté l'innocence kon ñi faral di sol weex lu ci ëpp dañuy nekk ay nit yi nga xamante ni dañuy euh, maanaam dañuy nekk ay nit yu simple ay nit yu ubbeeku aussi euh, ci lépp li nga xam ne mooy àddina bëgg connaissance bëgg savoir nekk ay nit yu am euh, mën nañ ne esprit ouvert kon ay nit la ñi nga xam ne tamit yu capable euh, jóge point A pour dem point B bu ñu amee obstacle tamit du ñu hésiter recommencer encore parce que du ñu gaaw a découragé. kon ba tey ñu gis ni nit ñi faral di sol lu weex dañuy nekk ay nit tamit yu bëgg liberté maanaam bëgguñu ku leen tënk wala ku leen euh, <laughs> tegal ay directives yoo xam ne moom daanaka bokkul ci seen ay mën nañ ne ay gis-gisu àddina kon ba tey ñu gis ni ki nga xamante ni dafay faral di sol lu weex day nekk nit ku perfectionniste ci rangée de ses pensées ak ci environnement wam bëggul lu ko takkal nit ku seexlu la parce que d'habitude boo seetloo lu ci ëpp ci day weex lu ci ëpp ci environnement am parce que weex boobu dafa am na muy dundal xolam et que bu gisee weex même bu ci amoon fukk du ko teree jënd weex kon dangay ngay gis ni moom weex boobu moo koy symboliser et weex boobu tamit mooy wane euh, niveau bi nga xamante ni tamit mooy niveau setam ak spiritualité du coup année yu 5 la ñuy seex soxla lañu ay nit yu maniaque lañu. ba tey ñu ñëw ci couleur rose rose dañ ko gis euh, mu nekk couleur boo xamante ni couleur euh, festivité la ba tey couleur mën nañ ne naka laa ko mën couleur bu duu la couleur la boo xamante ni d'habitude xale yu jigéen ñi bu ñu juddoo moom lañ leen di solal couleur bu ñu xam dañ ko def couleur pureté par rapport ak euh, ni mu kon ñu gis ni Rose ñu koy sol lu ci ëpp dangay gis ni seen personnalité dañ nekk ay ay nit yu romantique ay nit yu chaleureux ay nit yu doux. nekk ay nit yu optimiste nekk tamit ay nit yu xaw a narcissique ki nga xam ne dafay faral di sol Rose lu bari da ngay gis nit la ko bëgg confort nit la ko bëgg tamit euh, environnement bu macha allah nit la ko bëgg luxe. bu ngeen seetloo par exemple ñu ci bëri <laughs> boo ngeen xoolee ci personalité yi rek da gis ni macha allah ñu faral di utiliser rose lu ci bëri boo seetloo rek da ngay gis seen personalité surtout ci ñi nga xamante ni mooy personnalité yi gën a influent kon ñu gis ni kon rose euh, ki nga xamante ni moo koy faral di utiliser lu bëri ci comme couleur surtout ci ay yéreem da gis ni nit la boo xam ne daal confort ak bien-être moom jaral na ko lu nekk waaw kon ñu gis ni Euh, macha allah ki nga xamante ni ñu ñëw ci couleur orange waaw orange ki koy sol dafay nekk nit bi nga xamante ni euh, nit la bu mun nañ ne euh, bëgg feet bëgg xew nekk extraverti d'habitude day nekk nit koo xamante ni comme orange ni ñu ko symboliser nekk na couleur boo xamante ni couleuru automne la mën nañ ne jant bi tamit des fois mu orange panneau avertissement yi tamit des fois mu orange. orange vitamine C cela veut dire que couleur bu actif la <laughs> nit la koo xamante ni macha allah nit ku bëri énergie la nit ku sawar la nit ku macha allah. kii faral di sol orange tamit bëggul tout le temps nekk ci benn place wala di def les mêmes choses bëggul routine waaw bëggul routine day bëgg di changer bëgg di innover bëgg di améliorer. kon ñu gis ñi nga xam ne dañu faral di sol orange lu ci bëri des fois mën nañu nekk ay nit yi nga xamante ni des fois ñu xaw a nekk tuuti manipulateur calculateur parce que dañu nekk nit ñi nga xamante ni dañu imprévisible kenn mënu leen a natt et que <laughs> macha allah seen biir bopp lépp li nga xamante ni gis nañ ci opportunité dañ koy saisir. des fois tamit ñu gis ba tey euh, ñu faral di bëgg orange mën nañu xaw a am tuuti instabilité mentale parce que wala boog ci ni ñuy def ci li ñuy si euh, seen ay liggéey wala seen ay euh, jëflante wala seen ay humeur ak seen ay émotion kon ñu ñëw tamit ci couleur bi nga xam mooy couleur gris. gris kon ñu gis ne gris dafay symboliser li nga xam ne mooy maturité. équilibre nit koo xamante ni macha allah ah, dafa bëgg a discret bëggul feeñ bëggul kenn gis ko waaye nit la koo xamante ni tamit dafay wane niveau bi nga xamante ni rek ah, du jël part ci dara parce que dafay distinguer entre moom ak ñeneen ñi. gri nekk couleur boo xamante ni dafa jafee sol dafa jafee ehm, ménager lu dul xanaa nga am complet tout complet nekk gris nga def ci leneen kon couleur la boo xamante ni bu neutre la mais en même temps jafee habillé ak beneen couleur. kon ñu gis ni kii faral di sol gris nit la ki nga xamante ni dafay faral di reste neutre ci lépp bëggul génnee opinion wam dafa discret nit la ki nga xamante ni tamit ba tey du bëri wax du fës du bëgg centrer attention ci moom moom daal euh, couleur bi mu mel noonu lay faral di comporter wala plus souvent nit la koo xam tamit du faral di bàyyi ay émotion wala ay pensées nit ñi di xam ne ñuy xalaat wala di exposer boppam kon couleur yi def nañu tour bi dina am nag yenn yu des xëy na bu ñu ko jot bi mayee rek une autre fois incha allah ñu daal di indi yeneen euh, couleur yi nga xam ne rek mooy euh, deuxième rang bi parce que dem couleur primaire yi secondaire yi